ku sa décide juge moo ko daan nga nga interprété ca la ko juge ba daan te procès ba jeexul nga génne ko tey ab juge delloo ko maintenant ci biir fichier bi nga ne non non procès bi jeexul te pourtant bu njëkk ba nga koy génne procès ba jeexul woon waaw kon nag sénégalais yi yéen la ñuy waxal léegi jaay doole bi fi am dafa ëpp dañoo bëgg ñu delloo Ousmane Sonko ci fichier électoral bi parce que loolu mooy yoon cendeela moomul réew ministre de la justice Sidiki Kaba moom réew mi ci la ñuy profité pour wax les leaders de l'opposition ñoom ñëpp nañ ñëw bokk ci lakos avec sincérité pourquoi parce que ku yaakaar ne bu ñu éliminer Ousmane Sonko ci jaay doole yow da ngay mucc wala da ngay rëcc da sa bopp Ousmane Sonko lii Macky Sall di jëm ci moom li tubaab nan qui peut le plus peut le bu leader yi seetaanee ba Ousmane Sonko ñu jaay ko doole ñëpp xam ni dara mënu koo tee nekk candidat parce que ñetti dossiers yi ñu koy toppee yëpp damay dégg sénégalais di ci wax mais ñun dañuy waxtaan ak homme déglu nañ les spécialistes démb yéen ñëpp gis ngeen ñi nga xam ne ñoom ñooy borom xam-xam ñu tuddee ay agrégé en droit ñu génn seen texte wax ni Ousmane sonk fichier mi buñ ko ko joxul mooy état de droit amatul Sénégal jëratul ñu atte kenn ci prix ci ci ci ci tribunaux yi ñëpp gis nañ maître Doudou Ndoye nga xam ne ñëpp xam nañ ni moom. xarañteem Sénégal kenn weranteetu ko surtout que matière bi ñuy bi ñuy discuter nii moom loolu la jàng ce loolu la spécialisé wu lu mu wax nee na Ousmane Sonko ñetti dossiers yi ñu koy toppee yëpp ci benn bu ci mën a tee boo jëlee bu mambay ñaami li loi bi wax dani buñ la daanee lu ëpp juróom benn weeri kaso kon Ousmane songo juróom benn weeri kaso lañ ko daan tegul benn bis kon kenn mënu koo tee nekk candidat ci dossier mambay ñaami des fois mu dégg ay sénégalais naan est-ce que du ñu génnewaat dossier Mame Mbaye Niang bu ñu ko génnee lu ñu ca man dossier Mame Mbaye Niang ba mënuñu ko caa daan par cour de cassation du attewaat lam mooy recours nga def dañuy xool ndax yoon yaag procédure yaag yooyu respecté nañ ko léegi nag li ñu man mooy ne respecté nañ ko kon dañuy confirmer la la décision du tribunal buñ ko confirmer mooy dossier boobu kenn mënu ko cee tee nekk candidat parce que juróom benni weeri kaso yundul tëdd lañ ko daan que yoon mooy juróom benn weeri kaso yoo dul tëdd wala au moins ñetti weeri kaso yoo tëdd oui il faut mu nekk juróom benn weer yu teg il faut lu ëpp juróom benn weer yoo xam doo ko tëdd wala au moins lu mat ñetti weer yoo xam tëdd nga ko kon nag Ousmane Sonko lañ ko daan ci dossier Mame Mbaye Niang bi diffamation de kenn mënu ko ceetee nag candidat parce que ponkal yi am xam-xam ci mbirum droit yëpp loolu la wax beneen bi mooy bu Adji saar bi nga xam nee naa leen ñaari at yan ca daanoon moom jàpp nañ ko faf comme jàpp nañ ko mooy dañuy attewaat léegi kon procès boobu mënatuñ ko fii attewaat ba ba ba mu yegg ca cëppaandaw ba li ñuy tuddee en France en français l' autorité de la chose jugée mënatu xajatu fi kon boobu dossier tam mënatuñ ko cee tee nekk candidat bu mujj bi nag moo gën a neexate mooy bi naan daa sàcc téléphone koo xam ne yow say militant ak say sympathisant soo ne leen vingt quatre heures dajaleel leen ma trois cent millions ñu dajaleel la ko waay waay waay looy doy ab téléphone ana ab téléphone yow loo koy soxlaa ba koy sàcc parce que kuy sàcc mooy loo xam da nga koy jëfandikoo Ousmane Sonko lu muy doy sàcc téléphone kenn garde corps Ousmane Sonko sax soxlawul téléphone téléphone jàmm ndax su ko bëggee ay militant Ousmane Sonko jëndal leen kon nag nañ bàyyi seen caaxaan yi Sonko est candidat loolu la lakko wax mooy Ousmane Sonko Macky Sall bu bëggee tere Ousmane Sonko mu nekk candidat mooy élection du am parce que moomuñu sénégalais yi nag. la ñuy waxal ginnaaw bi ñu waxee opposition bi leen jël leen seen responsabilité na opposition bi yëpp taxaw pour yéene Ousmane Sonko jàmm c'est important parce que gis nga booy xëccoog nit danga koy ñeme opposition bi seen intérêt mi ngi ci Ousmane Sonko nekk candidat parce que su leen Macky Sall su suñ seetaanee Macky Sall jaay doole mooy bu leen bu jaayee doole Macky Sall bu jaayee doole Ousmane Sonko qui peut le plus peut le moins ñoom seen kaw la jëm kon ñoom dañoo am intérêt ñëw taxaw ci dëgg pour que ñu am des élections inclusives mooy élections yoo xam ñëpp ay bokk kon Ousmane Sonko dafa am war a bokk Mamadou Lamine Diante bu bëggee bokk bokk keneen ku bëgg a bokk bokk capitaine Touré bu bëggee bokk bokk keneen ku bëgg a bokk bokk suñu doyen Habib si sax bu bëggee bokk bokk. loolu mooy démocratie. kon nag bu ñu jaayee doole Ousmane sonk na opposition bi yëpp taxaw te bañ a nekk seen ruq di ñaan ñu éliminer ko loolu ku ko yaakaar defa ne militant yi Ousmane Sonko bu ñu éliminé Ousmane Sonko dañ lay votel boobu da ngaa xamul li xew kon nag damay lancer appel à l'opposition ñu taxaw ci dëgg Ousmane Sonko ñu bàyyi ko mu retirer ay beneen bi mooy sénégalais yi Sonko li ko dal yëpp yéen a tax Ousmane Sonko bu doon biri boppam kese la kon lii ko dal du ko dal tey parce que ay moroomam fa muy liggéeyee ñu ca ëpp ca ñoom am nañ ay milliards. parce que man taxaw naa ne le candidat bi nga xam ne moom lañ samp ñoom waa système bi te ragal Ousmane Sonko c'est un candidat milliardaire waaye milliardaire am lu mu ko jariñ fi mu jaar dans le nord fan yëpp ñu ngi koy yuuxu fu mu romb ñu sunkuriser ko mënta gañe ab centre de vote bay gañe élection présidentielle ñoom xam nañ ko léegi moo tax ku yëngutu ñun la doo ko fi defee gis ngeen ni tey même ñun conférence de presse bi dem nañ ca fañ ko waroon a defee defi pexe ba ni leen bu leen permettre ñoon ñu ñëw fi tey à la dernière minute pour bëgg koo yàq loolu la fi président Macky Sall nekke dictature la nekke Sénégal maanaam bu kenn wax bu kenn ŋaang na jaay doole ñëpp bu ko defee ñëpp noppi mu def li mu bëgg a def maanaam def passage en force imposer Sénégalais yi président boobu nekkul ci seen xol bugguñu ko kon nag ci gàttal li ñu leen bëgg wax mooy Sénégalais yi ñoo war a am taxawaay bu Sénégalais yi taxawee tem ni ñun ki nu def ko ci suñu xol mu wax ñu lu ñu doy ban bëgg koo dénk suñu réew day nekk candidat bu ko sénégalais yi taxawee jëmmal ko wax ko taxawee ko kenn mënu koo tee nekk candidat kon Ousmane Sonko waxoon na ko ne man lii tax ma nekk candidat ak ma man bañ koo nekk ci sénégalais la dépend kon sénégalais ñoo war a jël seen responsabilité parce que la souveraineté appartient au peuple kon li am mooy candidat la boo xam ni sondage yi def yëpp wane na ne Ousmane Sonko bu demee élection il gagne les élections dès le premier tour hypothèse yi gën a bon ci sondage mooy Ousmane Sonko day am 60 pour cent moo gën a bon ci Ousmane 60 pour cent sondage yëpp nee nañ même waa ji yi nga xam ne daa bëggoon na def troisième mandat te mujj la dem bu demoon Ousmane Sonko da koy gagné. kim fi teg nag nga xam ne moom ab quartier sax mënu koo gagné mun nu koo gagné ca parcelle Assainies kan moo ko fa gagné Jamil Sané Jamil Sané kenn xamu ko ña ña voté Parcelles Assainies Sonko lañ voté ña voté Patte ñu ca bari ci ñoom xamuñu woon may mun a ci Ousmane Sonko lañ voté ña voté ca Golf xamuñu Khadija Mahécor Ousmane Sonko lañ voté te comme ni ma koy waxee. bu ñu tey ji Ousmane Sonko su jëloon responsabilité à l'époque ba ñu yërëmaate jël ku ko neex teg ko à la mairie de Dakar ku Ousmane Sonko teg Dakar waayu votel parce que usman Sonko est majoritaire à Dakar moo majoritaire dans toutes les régions seen candidat bi laaj na question kenn tuntooguma Amadou Ba ban quartier la man a gañ Sénégal nan ma nan ma rek ban quartier la mën a gañe man kay ba léegi maa ngi laaj question bi ban quartier la Amadou Ba mën a gagné au Sénégal boo xam ne sénégalais dañuy rang di votel Amadou Ba kon nag liy dëgg mooy munoo fee nekk amoo candidat boo mën a gagné Ousmane Sonko nga ni par force damay éliminer Ousmane Sonko pour faire plaisir aux Occidentaux pour faire plaisir à la France pour faire plaisir à des lobbies yoo xam si ñoom Amadou Ba moo leen gënal parce que Amadou Ba su ñëwee comme ni mu ko waxee continuité lay def mooy li Macky Sall di def nii lay continuer def mooy lan mooy xale yi dañuy continuer di jël géej gi di dee mooy xale yi. dañuy continuer di jaar Nicaragua pour dugg États-Unis ci jafe-jafe mooy xale yi bu ñu jàngee ba pare duñ am liggéey mooy xale yi bu ñu feebaree ñoom ak seen i waajur duñ am fu ñu fajoo li ngeen gis nag ki dem mooy jigéen ñi nga xam si ñoom lañ bu nu xataal fii ci camp pénal jaay leen doole ba ñaar ci ñoom ñu yóbbu leen à l'hôpital parce que dañ leen a gaañ kooku wone na nag Ousmane euh, Ousmane Sonko nag quand même Macky Sall ragal na ko nag li mu bëgg mooy toroxal sénégalais parce que soo bëggee toroxal sénégalais mooy toroxalal jigéen jigéen kenn du ko toroxal ñun Sénégal xamuñu toroxal nit parce que réewum teraanga mais rawatina jigéen ñun duñ toroxal jigéen kon Macky Sall toroxal na jigéen beneen mooy Ousmane Sonko mi ngi defar grève de la fin xam nga lu ko waral mooy Ousmane Sonko dafa déggal kilifa yi dañ ko arrêté sa grève de la faim mu arrêté Sénégal gépp gëm suñuy kilifa diine bu ñuy wax dañuy w ak ñii wax ak mooy bi ñu waxee Ousmane Sonko déggal na leen comme nam leen déggale woon en mars deux mille vingt bi ñu bëggee dëbb dëkk bi booba dëkk bi la ñu waajoon na dëbb booba ñu ngi waaj a dëbb dëkk bi sunu xale général sëñ Mountakha Bachir yónnee ne bu leen dëbb dëkk bi Ousmane a ngi fekkee réunion ba ñu ngi ko defee ca Fan siti ñun ñi ñëpp ñu bëri ñu fekk nañ ñu ne ko sëñ taxaa bu ñu ñaanee ñu may ko moo tax ñu may mun Mountakha bii yoon it bi ko sëñ Muntaxa ñaanee may na ko bi ko yeneen kilifa yi diine yi ñaaneet may na leen mais li jafe-jafe Sénégal mooy kilifa yi waa ji buñ ko ñaanee du leen may loolu mooy dëgg te jàmm nag ñaar ñoo koy séq Ousmane Sonko nag buñ ko téye ci prison bi di ko jaay doole di duma ay jigéenam jël ay ñoñam ku ci bind benn